dal leen ak jàmm soxna ayda dal ca dëgg-dëgg du jóg mukk ci di yéem sénégalais yi ngir taxawal cantam gi ci bésub Saint-Sylvestre moom soxna ayda Coring international des cantakun dafa dem seeti ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ngir xamal ko ni cant gi muy waajal lu méngoo la ak ndigalu xalif général kulli murid di sëriñ Muntaxa Mbàkke ñu jox ko ab autorisation gu ko may mu taxawal cant yu mag yooyu ca cofeel ca Medinatul Salaam cant googu yaatu woon lool mbooloo mu takku gi ko wuyu si di firndeel rekk moom Aïda Diallo kartan gu mu am ci taxawaayam ci yoonu murid ay cantaakoon yu bari wara sax ay aydaakoon yu bari ñëw nañu jóge ko ci ay gox yu fasantikoo ci réew mi ngir fekkee ci cant loolu loolee di firndeel ni baatam ci biir cantaakun yi ba tey mu ngi des di dëggër te sax ñi ko jox bopp ñoo ëpp fuufa ñeneen moom jëwriñ international de cantaakun mu ngi fësal taxawam te di dëggal pas-pasam ci yoonu murit rawatina ci li nga xamante ne mooy waa kër sëriñ Cheikh Béthio mi nga xamante ne moo doon njiital cantaakun yi balaa ñuy wéyal ñu àndandoo déglu benn ci wëy yi nga xamante ne doon nañ ko wëy mu mel ni luy gaaruwaale sëriñ Saliou Thioune bu Gueule Tapée di soxna Batoor nekk wujju ba soxna Ayda njiital Ayda Kouni ànd ak loolu moom soxna Batoor yemul foofu ginnaaw yooyu def na ab discours anam fësal na ay kàddu yuy dëggal topp gi ñu topp soxna Ayda ànd ak loolu mu génnee lu toll ci lu ñu mënta xayma ci alal ak i teraanga jëlee ko ci jëwriñ yi nga xamante ne ñoo nekk fenn fépp ci réew mi ak ci bitim réew ngir jébbal ko seen jëwriñ bi di soxna Ayda. maa ngi santaat bu baax a baax soxna Aida di tuub ci lu ma xam ak lu ma xamul. di ñaan nga jéggal ma. moom tuub naa sax mu mel ni dama këf micro bi. naa bu baax ndax tey dangaa woote ak cant. woote gi woote ak cant mu jural ñu cant. ngir dañu cee dimbali jëflooñu ci gën ñu woowaat ci liggéey bi ndax sëñ Béthio moo ni ma yërmande ji mooy jëfloo mbooloo mi te ci loolu nga nu mës a sóob yàgg xàll yoon wi buñ ne cent million ñu ne soxna Aida ñu ne trois cent million ñu ne soxna Aida ñu ne un milliard ñu ne soxna Aida yaa tax ñu ñeme kon ñu ngi santaat bu baax ñu la ñaan moom kat sëñ bi da koo wax jinax bi njëkk génn geneen bu génn geneen a ngee rek la ñuy wax dama ñëw yóbbaale géew ndax bu dul woon sa pas-pas kon bu ñu yeggee ci sunu sang bii nga xam ni mooy suñu borom kon yaa saa góor waaye yaa tax ñu laxasaayu di soxna xam ni ndekete yoo dañ koy liggéeyal faw kon santaat nañu wér moom nag tey damaa ñëwoon ak waa Touba kër Serigne Touba ndax kat mbooloo mu ni toll moom mosuma koo gis ñu teew ma bëgg lool nag mu jural ma ak ci sa biir woote boo wii ci la ñu wuy see ay yàlla na nga yàgg a woote ñu yàgg a naa bu baax ñëwoon nag njëkkee sunu tuub ani tuub bi ani jëwrin Ablaye Dieye ak li fi joxe nii nañ ko boole ci tuub bi waaw soxna yi damaa ngi sant ci mbooloo mii waa Touba ci Sëriñ mbooloo mu am yéene mbooloo moo xam ni rafuñu dawuñu ragaluñu xalaatuñu moom na la jàpp rek ngir sëñ Béthio ndax sëñ Béthio dañoo dimbali dañoo teral dañoo sagal daa musta yërëm boppam ci duñu jariñ sëñ Béthio mosul ménager ni son physique ni sa bourse pour répandre la miséricorde de Serigne Saliou Mbacké sëñ Béthio yóbbu nañu fu ne terale nañu mu ne aka bari kër aka rafet yi kër aka rafet yi ceeb waaye sëñ Béthio ba ci àll bu xonk bi ba ci maanaam koo xam ne xalaatoon ñu fii ni dëkk na fi ngir rek jariñ ñu ne fii sëñ bay toog fanaan ñu fanaan moo xam benn nit moo xam ñaar moo xam ñett moo xam juróom naan ñu ay waaye yéen samay wéttal sëñ bay toog ñu dimbali kenn fekk ko ci suñu jëmm yi rek li mu rek la ñuy def man li ma waxoon lay waxaat dama ni ko woon cuuni dama am yéene loo bëgg dama bëgg doon sa amir sëñ Béthio loo bëgg moo xam oto la moo xam jet privé moo xam kër ak koo ko bëggal loolu lijjantiw du ma ko lijjanti cuun na kenn ci waa Touba kër Sëriñ Touba jub def ko ñuy dox mu ne kat bu ne war nañ na la jàkk ma ni la jàkk ne gars yi ma jàkk ma ne jàpp soxna ma ne kat damaa fas yéenewul yéene dama amoon ci sëñ di am lenn lu ma ciy doxee lu di ko jóor soxna Aida ndax sëñ Béthio dama ko xool ci jaww ji duma ko xool ci niir yi duma ko xool ci garab yi ci yow nii laa koy xool. léegi nag ñu ma ndax kat xam naa ni matuma ab taalu bi laa te damay sàkku di nab nabi nee na dëggu dëggal xam-xam fekk si la kon maa ngi santaat bu baax di wax ni ani tub bi waaw ba tax naay da indi nañu ay mbana ak gasal ndax ak cant bernde ter ne rindi togg ñoom yu bare di joxe te doo ci xam xejjat seen nga nga innové ne barket waaw waaw ñu xaar ne ah moom mbanay moom mbanay yees daal di nag rek indi fukk loolu kat waaye koy mën a jëf waaw Touba kër Serigne Touba daara yi nekk Wakaam ak Basal mana la inde ak kuttu ak besel 47 pièces ak defe naa 93 la ñu wax waaw attention

waaw. monsieur Soxna Aida. maa ngi lay sant naa. mbokki taalibe yi nag a Touba ki Serigne Touba dañuy ñoo xam ne maanaam. mu ma doon wax naan sonal naa leen sonal naa leen ngir ni mbir yi di tiifoowee waaye xam naa ni loolu rek ay njariñ ndax sëñ bi nee na yërmandi ji mooy jëfloo mbooloo mi te wanu ñu mag sonn wanu ñu mag tay wanu ñu mag toqi tey la ñu gën a engagé wu ndax sëriñ bi moon waxoon ni ñu yàlla na ngeen am xolu jëf te bañ a toqi man nag maa dem ba xam ne nekkatee fit mooy am xolu jëf fit mooy ne jàkk sëriñ bi nga ne ci dëgg bul sa ragal wi te ñii ma àndal ñoom de sant naa de bëgg nañu am nañu yéene ñi ngi nam nabi seeni dërëm seeni ñaar dërëm du ko fekkee te saa su ne bu ñu defee ñi ngi daw wutiwaat damay jékki-jékki rek ne leen maanaam jëf léegi léegi ay ca génne kaa la ñu tàbbi loo leen woo ñu wuy ma sant naa bu wér ñu sàkk nga ñaanal leen ndax ñun kat xam nañ ni li ñu am moo ëpp milliard ndax sëñ bi moo nu ne ngërëmul yàlla ngeen am te ngërëmul yàlla moo ëpp milliard aay dañu kàjju lañu am waaye dañoo bëgg gore te gore mooy dina ko jóor gore mooy sunu dara bañ ko fekkee ndax suñ béykat kat ni ma ko waxee rek samay njëlbeenu kàddu mos ta waneeg coono ci dinu diggam mosuñoo seexlu mosuñoo xeet ba ci biiri néegam da ci taalibe yi kenn umpu kenn barki sëriñ Béthio diis gan bi kenn te toll suñ Béthio amul denn ndox waaw ah waaw moom xanaa addiye ji jawriñ universel Daouda Thiam mu toll yaa jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Béthio Serigne Béthio amul dennandoo soxna Aïda Saliou ci woon yàlla na fi yàgg lool te wér ànd ko soxna ak soxna Dia ci woon addiya gi moo ngi ci cinq millions bu ñu doon ay joor ay milliards teewu tuub danoo war yéen ni ma ko daan waxee sëñ Béthio rek noonu laa la koy waxee moom daf ñu defal lu ne jom dañ ne bëreet mu defal ñu gërëmul yàlla te xarewuñu lekk nu xob nee na maanaam sëñ Béthio xewal am yàlla civilisé ndax bu njëkk ba ku daan li mu ngi wut yàlla dana xiifal dana maral dana lekki xob dana dem ci àll ba waaye sëñ Béthio fekk nu ci taax yi ñu raam jébbalu ak li nga xam ni rek moom ko nekk taax nga xam ne du jéem jéem dara jéem xam dara ci yàlla suñu borom ci sëñ Tuubaa sukk jébbalu am ngërëm loolee nag mu tàmbaleeg ñun tax ñu war a gore moo tax ma ni ñun defatuñu dara mu jox nu la gën muy ngërëmu yàlla kon ñun goree du war ba tax na buñ doon yëpp buñ ko doon yóbbu ay milliards buñ la doon yóbbu ay milliards taxul ñu def li nga nu defal loolu de laa daan wax suñu béccoo moo tax saa su ne dafa war a ànd ak tuub moo tax loolu lii laa lay wax ñoo ngi tuub ci lii ndax xeeb nañu ko xam nañ ni ay milliards buñ ko fi doon indi dafa war a ànd ak tuub ndax li ñu am ëpp milliards ñu ngi santaat bu baax di ñaanal soxna Adja keneen kiy jël kàddu di fësal ànd gu mu ànd ak soxna Aida mooy soxna Aida Saliou moom mi nga xamante ne ba mu jëlee kàddu fësal na mbégteem te jébbal ay siyaaram kii di soxna Aida Diallo woon soxna Cheikh Béthio ma woon kàddub soxna Aïda Saliou yii ni gàcceel na képp koo xamante ne doon nga wax ni moom soxna Aïda Saliou ak soxna Aïda Thioune dañoo amoon ay problème ndax lii lee kat firndeel na ne ñaar ñi tey la ñu gën a booloo ku déglu kàddu yi di nga xam ne ñoom ñaar te weddi gis bokku ci ñun ñoo ko àndandoo gis soxna Aïda Saliou jox na siyaaram te jeesal njébbalam ci soxna Aïda lii lañ leen indiloon tey daa ñëwaat ak yéen ci yeneen xibaar jërë ngeen jëf bëgg-bëgg jëmi Serigne Bethio yàlla fi yàgg lool te wér Saar yu dëgg dëgg jëmi Serigne Béthio yàlla fi yàgg lool ci wér jërëjëf Serigne Béthio jërëjëf Thioune ñu ngi lay siyaare gën ngaa tedd siyaar di ñaan bi yàgg lool te wér di santati ci teew ci sa ëtt bu tedd bii xam ne teew fi mooy sunu mucc mooy sunu yokk mooy sunu sax ci cant gi dañuy santaat bu baax ci dimbali bi nga ñu dimbali ba fekkee bisu tey bi muy cant gi nga woote woote sant Serigne Saliou Serigne Béthio dimbali ñu def suñu diine muy sant Serigne Saliou ñamal ñu ko ndax bu dul moom kon dara du ko jar ku xool tey xam ne dëgg rek ay dëgg dëgg neex yàlla te Serigne Béthio mooy dëgg. ñu ne ñu ngi bég lool di jiital ci kàddu yi dina tuubal ci luñ xam ak luñ xamul ndax kat waxtu bi ñu waroon di ñëw mel na ni tey dañ koo xaw a weesu lool di ko tuubal amul lay waaye rek amul yéene ci wuy si wuy si passif amaana sax du ma ne Pastef def ko loolu yow rek yaa ko mën a jugé waaye góorgóorlu nañu te yéene yi day wees woon na fii fépp ñu sant lool bi ñu sëriñ bi dimbalee def ñu ay cantaakoon ndax kat naa ngi fàttaliku bi sëñ bi ne yàlla cantaakoon la ndeysaan daa jëlaat micro bi di leeral naan dama ne yàlla cantaakoon la ñu jàpp ni dama ne yàlla taalibe sëñ Bethio te déedéet wax ba lool de daane yàlla génn xeetu jaamu yàlla lay def muy cant gi day sant boppam daane julliwul wóorul natul asaka ajuwul màkk waaye day sant boppam mooy cantaakoon bi melaw ngoowee eh, moom la ñu Serigne Saliou dimbali for ñu ci ci ci ci ci fa koo fee nga xam ne kéemaan la defar ñu setal ñu bañ set boo leen yokk yërmandeen jii di seen benn mu def ñi nii mu ñu def te àddina seere ko ñoom rek ci ak cant bu dul fay mukk barki Serigne Touba. di ñaan gore ndax kat yi fi daal laaj ngor sëñ Béthio dafa nekk waacoon ngor ci reconnaissance ci ci tubaab ni ñu koy waxee mu ne ma c'est la reconnaissance mu ne ma mooy cant gi bi ñuy ñaan sax ci cantam gi faw ni ko soxna Bator waxee sànq sa woote gi kat tax na ñu dajaloo fi nee ñu fi dajaloo ñuy ñaan nga yàgg koo woote ñu yàgg laa fekk si te bu ñuy ñëw ñu bañ a ñëw loxoy neen ndey sëriñ Bethio day nee naa noyyi li ma sëriñ Saliou defal ma di ko wax ay daag yi ay daag yi maa mooy man mii maay moom jàpp ci ay dem yi dëgg-dëgg jàpp ci man. dañoo toog dégg mu di ko wax ñu fekkee naaj baa ngi nii nag nga ne gisuma naaj bi loolu la ngay def lu la neex waaye ñun de nee nañ la càkk te doo suñu xef. organiser organiser sax dafa mel ni yeewoo lépp di dox waaw sëñ bi la yaay la neexee tëddal lépp di dox barki Sëriñ Tuubaa dañoo fas yéene laxasaayu laxasaay yu yees peq laxasaay woon nañ de waaye dañ koy yeesal yeesal gi daa tàbbi kon faru lépp yees ñuy ñaan at mu yees mi ñuy dugg maa koy wax gaañu kat nee naa leen bu ñu nee at mu yees 31 décembre di fomm ni lépp saayir la déedéet Serigne Touba moo sàkk bis yi sàkk at yi sàkk weer yi moom moom lépp nga dimbali ñu ba bisu tey bii <laughs> lii lii bu nekkoon ci mbedd yi yëf yi tëj waaye sa yërmande ji tax nga dajale ñu fii te mu loolu ñu it def na ci ñun loo xam ne boo ko wootee woon sax xel yi fii lay jëm si barki Sëriñ Tuubaa waaw yow sëriñ bi dalaa tànnal Sëriñ Tuubaa daa tànn ci biir tànn bu yonent bi ñi doon murid Sëriñ Saliou ñëw tànn ci biir tànn Sëriñ gi ñi doon cantaakoon yi waaye sëñ Béthio da laa tànn ci biir cantakoor yi ñi bokk ci yeesal